nekk en même temps militant de Pastef Bakary ñu ngi lay nuyu. Euh, Birama ñu ngi lay fay. Mmh. alors très bien euh, honorable dama bëgg ñu def une fausse ouverture euh, wax tuuti ci information yi jot sànq mooy mbiruma Aminata Touré nekkoon député. non inscrit. c' est mmh. vrai foofu bu ñuy dem ci quatorzième législature bi ñuy jàpp ne fu mu ne nii. destitué nañ ko ci poste de député boobu gannaaw bi bureau assemblée nationale toogee ban jàngat nga am ci situation boobu nga xamante ni dal na ci kaw. en tant que député non inscrit à l'Assemblée nationale. waaw Birama donc euh, da nga mooy may d'abord. Mhm. ma nuyoo seen euh, internautes yi. Mhm. ñi nga xamante ñoom ñi seetaan. Mhm. di profité di nuyoo sama sama base bi fële ba na ñi nga xamante ne ils sont restés aujourd'hui scotchés pour mun ñu seetaan. nuyoo également sama waa fami sama waa coalition sama waa parti PASTEF. waaw c'est vrai c'est Bakary Diédhiou donc je euh, député du peuple. Euh, donc euh, ñu fal ma ci liste Yewwi Askan bi mhm. mais ma nekk en même temps militant de PASTEF les patriotes waaw bu Ousmane Sonko. très bien précision la woon ci <laughs> présentation bien sûr que oui. Okay. Ah, normal mooy préciser wu. tout à fait c' est, voilà. c' donc su ma ñëwee ci euh, ci destitution euh, Mimi Touré. Mhm. man man naa ne franchement sànq laa ko yëg. bi mhm. may ñëw en cours de route. mu am benn journaliste seen benn collègue bi ma woo bëgg a vérifier information bi ma ne ko en réalité euh, je courant. wala mhm. bi ma egsee fii nii sànq ma connecté wu ci suñu suñu groupe euh, député euh, coalition yi askan wi ci laa gisee information bi. Mhm. kon muy dëgg Mimi Touré donc euh, dañ ko destituer mhm. de son poste de député du peuple dans cette quatorzième législature. waaw alors ban lecture nga ci am xaaroon nga ko wala xaaroo ko en tant que député non inscrit bon waaw c'est vrai que man xaaruma ko woon trop. parce que euh, c'est vrai que ci constitution bu bees bi yaakaar naa bu 2016 bi 2016 bi. bon dañoo dugal saison saisonnement bi mooy article 60 article 60. Hmm. foofu la ñuy waxee un député qui démissionne euh, de son parti perd son mandat en cours. waaw ouais. en tant que député. En tant que député. Mmh. maintenant pour le cas euh, Mimi Touré. man jàpp man ne ki miimi Touré dafa démissionné Mimi Touré mu ngi mëne xeex ci biir euh, ci biir kii APR mais démissionné wul mhm. parce que euh, lu mel ni ay courant de pensée mhm. daan na am ci parti nit ñi dañuy nekk ci parti politique mhm. am beneen taxawaat beneen euh, réflexion bu bees bu ñuy indi ci biir parti bi mais Mimi mosul bind naa dafa démissionné. man yëguma ko mais ànd nga ci destitution bi wala ànduma ci ah bon ànduma ci. pourquoi man man daa mel ni dañu jaay doole. parce que pour ñu naan Mimi dafa démissionné. Mm-hmm. mooy mu bind. parti am bi ne man bokkatuma léegi. ci mm-hmm. parti euh, euh, APR. Mm-hmm. mais Mimi dafa nekk di mener combat face à benn injustice boo xamante ni daf ko dund. kon démission. mais est-ce que am na cohérence aussi nekk ci euh, branche bi ba pare di ko est-ce que en quelque sorte ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkal benn bokk yaakaar dootoo moom ak l'APR par ricochet destitution bi koy destitué du am man gisuma gisuma acte yi nga xamante ne mi daan na ko posé. gisuma incohérence mhm. moom laay wax dafa nekk ci courant de pensée. benn attitude la adopté. un mais qu'elle a posé. Mhm. xam nga même euh, dans la marche du mhm. la science même noonu lay doxee. da ngay dem ba benn moment ki nga xamante ne sax moo nekkoon sa maître à penser. nga dem ba d' ak moom. nga taxaw naan mais. mais boobu da tijji. li tubaab bi di wax un nouveau paradigme donc mi ci loolu foofu la toll dafa nekk mënee xeex pour une démocratie interne au sein de l'APR kon démissionné wul benn yoon ci APR dañ ko jaay doole parce que tout simplement tey nekkul di def li nga xamante ne ñoom loolu la ñu bëgg dictat bu euh, est-ce que du lu leen combat bu euh, intéressé wala mu arrangé leen en quelque sorte yéen ñi faree ci kujje gi moo tax tey jii ngeen koy def combat bi nga xamante ne madame Mimi Touré mu ngi koy mener contre son propre camp est-ce que du def leen arranger en tant que opposition parlementaire et opposition tout simplement moo tax ngeen koy defar parce que gis position yi mu amoon également ak Ousmane Sonko il y a quelques mois ci élection législative yi bu nekkoon Mimi Touré boobu du ngeen ko défendre non ci politique lañ nekk uh-huh. ñun dañuy xeex pour néewal doole Macky uh-huh. uh-huh. ci moom xam nga kon Macky Mimi xam nga jege woon na lool Macky Sall. waaw xam na lu bëree bëree bëree bëri bëri ci ñoom. Mhm. kon Mimi bu nekkee di xeex. Mhm. contre Macky Sall. Mhm. ci biir APR. mais ñun dañuy kontaan. parce que dafa leen di affaibli. comme nekkatoo fa bu ñëwee ci yéen di ko parce que gis nañ également contradiction passe d'armes bi amoon entre moom seen mentor muy Ousmane Sonko est-ce que bu ñëwee di ngeen ànd moom. bu ñëwee ci ñun. waaye bien sûr. ci opposition bi ce qui est sûr et certain bu ñu ko destituer ça veut dire que day ñëw ci opposition bi. Mhm. mais est-ce que xalaat Ousmane ko cheminer ci élection yi di ñëw. ak non man la nag day nekk ci opposition xalal yoonam parce que vous avez même entendu que Mimi Touré na candidature. waaye nekkul ne Mimi day ñëw. Euh, Pastef au cas où loolu waroon am cette situation là se présente. bu demee ba benn moment naan euh, man dem. léegi dama soutenir euh, candidature li mu fi waxoon yëpp da ngeen koy teg à côté. mooy lan. passe d'armes yi amoon ak Ousmane Sonko du dem. amul amul lu mu fi yàqul nag Ousmane Sonko. loolu moom honorable dégg nga ko. gis nga gis nga ci politique. Uh-huh. on ne dira jamais man doo ma mos a joxe loxo diw. ñun lu ñu soxla pour le moment. pourtant Ousmane Sonko waxoon na ko fii avec les anciens qui étaient là dans le système et tout ça. ñoom ñooy àndal tey lan la wax. quand même bi amul lu mu fi yàqul système bi. non xam nga système bi ay nit ñoo koy doxal. honorable te ñooñu lay àndal tey. xam nga euh, un système. Ousmane Sonko nu mu koy définir. dafa hmm. nekk lu complexe lu yaatu. mais ay nit ñoo koy doxal aussi nekkul ay ay nit. koy doxal bien ah, entendu déglu ma. Hmm. xam nga euh, euh, système ñun bi ñuy combattre. Hmm. balaa ñu mun ko combattre dëggantaan ba écraser ko. mooy ñu egg si au pouvoir doxal mettre en œuvre ñun suñu vision. mais donc euh, les gens les gens qui ont été des gens du système comme on les appelle. Mhm. yow dégg nga sax Ousmane Sonko naan euh, da ngeen xalaat ni ma ki Sall su demee ba xam ni ki moom mënul te d'ailleurs mënul. Mhm. mu ne léegi day ñëw jàppale ma damay naan déet. Mhm. non ñun mën nañu utiliser système bi ak pouvoir et maintenant écraser le système. kon instant bi ngeen di utiliser. non bu amee possibilité boo xamante ni mën nañ ko utiliser. boole ko ci suñu kii j'ai bien di utiliser. Mhm. n'est-ce pas utiliser comment. non mais par la ruse. par la ruse. en termes clairs par la ruse mooy lan. non c'est-à-dire que yàgg nañu wax ne que nit ñi n'est-ce pas pour mhm. euh, satisfaire ñoom seen propre besoin et tout. Mhm. mais ñun système bi ñuy xeex ni léegi dañ ko bëgg a fin. bu ñu amee opportunité boo xamante ne dañuy dal ci kaw système bi. mais dañ dañ koy exploiter. boo paree maintenant teg ko de nii la ñu gisee yëf yi nii lañ ko war a doxalee mhm. kon mën nañu utiliser système bi mhm. accès au pouvoir mhm. ba pare écarter ko très bien en parlant de Ousmane ak système bi ñu def benn transition jéem a avancer wax ci ordonnance de renvoi bi nga xamante ne doyen des ma xam Diallo def na ko jël na ko di moins waaye dossier de viol présumé boobu nga xamante ne diggante Ousmane Sonko la ak Adji Sarr pour yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy chambre criminelle gannaaw bi loolu amee Ousmane Sonko def na ay sorties benn ñaar ba ñett sax wax ci mbir moomu noonu Ousmane Sonko ci discours am ak posture bi mu am actuellement nga nekk militant de Pastef ban lecture am ci euh, situation boobu. waaw bi Birama xam nga caaxaan daal dafa baaxul ci réew. kan mooy caaxaan. ah mais bien entendu euh, les gens du pouvoir. ci naka ak ak kii bi Euh, le doigt des juges. ah bon jël ordonnance de renvoi yóbbu mbir moo xam ne moom moo ko war a gérer. gérer ko ba mu normal yobbu ko ko yóbbu ma chambre euh, criminelle ban criminel. viol crime la aussi criminel bi. donte viol présumé la honorable euh, nga baal ma mais viol aussi crime la fan lañ ko war a yóbbu bu dul chambre criminelle. mais mais Birama. Hmm. yow yaa gën a xam ni ki mbir mi tappale moo ko. non mais ñu ko war a yóbbu bu dul chambre criminelle honorable. non mënoon mënoon na nekk noonu. parce que ci njëlbeen. information yi ci ñu jotam. am euh, ku yoroon enquête gendarmerie uh-huh. mooy capitaine Touré uh-huh. mais dégg nañ ko lu mu wax uh-huh. nga am problème nga ñëw pour porter ma plainte ñëw bu foofu naan est-ce am problème ak ñeneen ak ñeneen donc mu gis fii dara nekku ci n'est-ce pas nga xamante ne moom moo yoroon mais est-ce que est-ce que gis-gisu euh, capitaine Touré lié na également gis-gisu euh, le juge d'instruction est-ce que lié na ko non attends on doit être dans un pays sérieux quand même la moo tax ñu ngi dossier bi euh, euh, gendarmerie pour mu enquêter uh-huh. du nekk du pour mu andil ay firnde uh-huh. mais capitaine Touré bu mu defee enquête bi mu gis ni fii dara nekku ci loo xamante dara dëgg lalul daal dossier bi uh-huh. n'est-ce pas euh, lan la ñu def fexe nañu nest pas ba créer ko problème ba tey bi ñuy wax ni ñàkk na liggéeyam nest pas ki nga xamante ñoom ñoo ko choisir yóbbu fa xale bu jigéen bi mooy gynécologue bi seen Gueye mais euh, rapport bu mu génnee mooy xale bu jigéen bi ci fan yooyu ne sëkkul dara ku sëkkul dara lu ñuy waxee viol am na bu amul benn rapport sexuel bu amul benn pénétration nan la ñuy waxee donc viol am na il faut que l'on soit sérieux quand même uh-huh. donc je pense que comme ni ko ñeneen yi waxee dëgg naa sax euh, Euh, l'ancien recteur doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques euh, mm. euh, Kader Boy muy naan quand même dossier bi euh, c'est ñu koy yóbbu chambre criminelle uh-huh. li ñu mënoon a jël décision mooy en un lieu ñëpp a ko doon xaar mais Ousmane Sonko ko de si pourtant lu tax du ko xaar mais ñu dem ci procès parce que wax na ko tamit honorable ay yooni yoon mm-hmm. les vidéos sont là te procès sax buñ fa demee yuuxu dina fuñ ko feegul ñu jàpp procès bi enrôlé guñ ko waaw Ousmane commencé di reculer am yenn euh, position yoo xam ne ak ñoom mhm. notamment yéen ñu ànd ak moom jàpp ne projet boobu warta mën na am qu'est-ce qui a changé entre temps ci discours bi mu amoon auparavant ak posture bi mu am léegi Ousmane xam nga yow man nga jàpp ni nit ñi dinañu sérieux parce que loolu il était de bonne foi bi mu koy wax hmm. mais ñu lan moo changé ci diggante non ñu gis ne ñu ko sëkkal ils ne sont pas sérieux dans la démarche jusqu'à la fin donc yoo xamante ci diggante bi nest mooy yan yu ci mujj mooy euh, les audios échange entre euh, Adji Sarr ak. Euh, mais honorable amul valeur juridique ba war a mën a tax doyen du doyen des juges. amul valeur juridique non am non dama la laaj rek. question la honorable yow gis nga fii nii yow journaliste. Mhm. gis nga fii ñu tëj nit. parce que tout simplement audio wala vidéo la ñu am. Mhm. bon je cite le le cas de le rappeur la Kilifeu. vidéo la de. nan lañ ko tëjee. non vidéo la. vidéo la la. mais euh, image da ngay gis. attends vidéo la mais fii audio yi est-ce que c'est pas authentifié. mais aji wax Adji Sarr wax na ni kii. waa effectivement moom moom moo ko wax. kan moo authentifié audio yi. moom ci boppam. biñ ko wooyee di ko entendre tout dernièrement. Mm-hmm. mais moom wax na ne effectivement man la waaye dama doon dama doon kaf. mais imaginel affaire boo xamante ne ay quatorze personnes ñàkk nañ ci seen bàkkan yow nga dem ba tollu foofu naa ne yow da ngay kaf. faut que l'on soit sérieux uh-huh. je pense que un juge qui est vraiment sérieux uh-huh. Adji Sarr jour boobu waruloon génn n'est-ce pas bureau ah bon ah bien sûr que ndax la non moom moo révélé nee na moom moo ko wax ni ci affaire yi dara amu ci ay complot la ba ba mu cité ay tur yi nga xamante ne ñoom ñoo uh-huh. euh, ñoom ñoo nekk ci ginnaaw complot bi ah? léegi Adji Sarr boobu affaire bi feeñ ne fang mu ne déedéet dama doon kaaf dama doon nax sama sëriñ bi pour mesurer moom fan la tolloo ci kii bi. Mm. mais quand même. yéen foofu ngeen sukkandiku ba jàpp ne procès warta mën a am. non. fan ngeen sukkandiku. non il y a beaucoup d'éléments qui ont euh, le président Ousmane Sonko. mais est-ce qu'on peut pour gendarmerie bi. Mm. mais dafa décharger le président Ousmane Sonko. ak euh, le ra kii euh, le kii médical. Mm. de Ousse Al Ousseynou. mais également dafa décharger le président Ousmane Sonko. mais est-ce que yor ngeen éléments yu doyen des juges fond pour mun a def renvoi élément que vous fondez, fondez vous Non, tout simplement une volonté, n'est-ce pas, de, de faire ce qu'il veut. Il ne parle pas de droit, mais il veut dicter sa Parce que tout simplement, am na ñu nekk ci ginnaawam ñoo xam ne euh, ñu yóbbu président Ousmane Sonko n'est-ce pas en procès loolu moo leen gënal parce que tey amuñu beneen dossier boo xamante ne dañuy sukkandiku pour jéem a écarter le président Ousmane Sonko. Uh-huh. kon lii mu nekk aubaine pour ñoom uh-huh. mais malheureusement chaque fois bu ñu jéemee leneen suñu borom ne sax day teg dëgg ne femme mais bu ñu leen déggee bu ñu leen déggee ngeen di wax honorable nga baal ma dañuy jàpp ne da ngeen bëgg a àtte seen bopp sur la base preuve yi ngeen am est-ce que réew mi toll ñun oh,